ku feebar bu nga faju waaye xam itam fa ngay fajoo ci la bokk kaay ma jox la adresse bu baax bi baraka bio 100 pour cent naturel indil leen ay produits yu mucc ayib yuñ defaree ak suñu ay gàncax set na sell na sans effet secondaire waaw ñu indil leen garab biñ dippee kun fa yëkkoon waaw man soigne tout laa ko tuddee moo xam bopp buy métti asthme hypertension hypotension fibrome kis diabète anémie ak yeneen xeeti jàngoro waaye yemuñ foofu góor ñi nga xamante nii dañuy perte réseau maanaam néew kattan ñu indil leen baraka chifa mi nga xamante nii moo mën ci wàllu ngóor góor ba tey ci wàllum góor ñi ñu indil leen le papa waaw yow mi nga xamante ni da ngay jàmbat varicocèle hématurie oligurie ak infection urinaire waaye fàttewun jigéen ñi ndax indil nañ leen la mama miy dox ci kyste fibrome trompe yu bouché insuffisance ovarienne adresse bi benn la ñoo ngi Castor ginnaaw clinique Croix Bleue wooteel gaaw ci 77 454 17 90 wala boog ci 76 535 81 36 wala nga woote ci 78 592 22 09 ak baraka bio di nga sàmm sa wérgu yaram ak njëg yu xéewale rafetlu suñu ànd ak ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci bile jitaay xibaar ñu ànd ak yéen jukkil leen ponk ci gën a fës doore kook tey ab audience ca palais de la république waa CUDIS di cadre unitaire de l'islam ñoo fas yéene jàkkaarloo tey ak président de la république ci ay kàddu ñu war a tënk waxtaane ko ci lu jëm ci wàllum xeexum violence ci réewum euh, Sénégal ñu àddu wax ci leneen ma Matar Gueye di vice président ONG Jamra division des investigations criminelles dañu ko convoqué ni ki tey ci altine ji li ko waral nag mu di ab vidéo boo xam ne dañu ko daal di truqué ne moom Matar Gueye moo daal di wax président de la république ci lu ñeel wàllub ëmbëb mi Sénégal 2020 di Ndeye Fatima John danañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi jeexale li gën a fës ak variant bu yees bi nga xam ne moom lañu ñu daal di biiralaat ginnaaw variant delta beneen variant bu yees bu tudd omicron moom itam daal dinañu koy biral ci réew yi Afrique yi ci Afrique du Sud la njëkk feeñee ba dax na experts yi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci lu ni daal dinañu ànd ak mooy li fas ponk yi ngeen taxeelu bàkk bi jàll ñu faram fàcc asalaamaaleykum mbokk yi ñu waat leen ci gën gi nuyoo nañu ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu lañ koy dooree faram-fàccee ak audience tey ci palais de la république ci teewaayu président de la république Macky ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk CUDIS di cadre unitaire de l'islam yi nga xam ne ñoom ñooy xeex lu jëm ci wàllum violence ci réewum Sénégal ginnaaw bu ñu jàkkaarloo woon ak coalition Yewwi Askan bi ngir ñu signé li nga xam ne moom moo di pacte boobu ñu lànk ba kandaar bi la yoon nag seen gis-gis mu di jëm toog wax ak président de la république mi ñuy dut baaraamu tuuma ne moom mooy dooreek opposition bi di fayu ay kàddu yoo xam ne war nañu ko fa tënk waxtaanee ko fa niki tey ci altine ji ca palais de la république ñoo du ci leneen coowal Mamata Gueye ba tax division des investigations criminelles daal di koy woolu tey ci ab convocation boo xam ne tey ca ba 10 heures di jot la ko wuy ji coowal Mamata Gueye li waral ñu daal di koy convoqué suñu natango yi lee di Sénégal ne nañ ab vidéo boo xam ne dañu ko daal di truqué ne Mame Matar Gueye moom moo ci wax président Macky Sall euh, ci lu jëm ci ëmb pour kile di Ndeye Fatima Dione di Miss Sénégal 2020 euh, mu mel ni daal dañoo dagg ñaari vidéo yi daal di koy sofale di wax ne président moom moo ëmbal Ndeye Fatima Dione te amaana moom Mame Matar Gueye waxul loolu mu doon li nga xam ne moom moo di kaddu yi suñu natango yi léegi Senenews daal di bind itam euh, ne Mame Matar Gueye dégguñu ko benn yoon ci interview yi nga def ne def na ko ci jamonoy Euh, président Macky ci lile coow euh, ñu àddu wax ci leneen variant bu bees bi nga xam ne daal dinañu koy euh, biral mu di variant omicron ginnaaw variant delta bi la yoon bu bees bi nag tax na ay expert yoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllum euh, lile di doomu jàngoro bi ànd ci ak diitange ak njàkkare bu ñu sukkandiku ci l'observateur lu ni mel ma nga feeñ ci Afrique du Sud yeneen réew yi Afrique yi itam ñu ngi jokk di xeex def seen kéem kattan ngir mën a jàmmarloo ak variant bu bees boobu lee di omicron waaye yëkkati ay kàddu jëmale ko ci variant bu bees boobu di alerté askanu Sénégal ngir ñu jël seen ay matukaay ngir mën a jàmmarloog doomu jàngoro bile di Covid 19 ñu àddu wax ci leneen. ak Pape Bouba Diop ak fàttaliku attum yàlla moo xam ne daal ci la daal di génn àdduna le 29 novembre 2020. ba le 29 novembre 2021 moom Pape Bouba Diop ci ak fàttali euh, bokkoon na ci gaynde gayndey Sénégal yi nga xam ne gënoon nañu leen ràññee ci atum 2002 ñaar fu ñeen fukki at ak ñaar la am bi muy génn àdduna ñu ngi ko denc file ci sëgi Dangoye ci Rufisque moom Pape Bouba Diop itam ba tey ci ak fàttali li leen di feebaru Charcot euh, moo ko dal di yóbbu ci li nga xam ne moom de ak nettali si soxnaam si def ci atum yàlla mi nga xam ne toog na gisul Pape Bouba Diop vidd bi nga xam ne daal dina koy def ci ak njabootam waaye moom itam ci boroom ci moom itam di soxnaam ak at yi nga xam ne am nañ ko ñoom ñaar ensemble dund ko ba yàlla may leen ci ak njaboot ñu àddu wax ci leneen lu doy waar jëmmati ci artiste bi lee di Soriba Koyate ginnaaw coow li nga xam ne am na ko fi ci ginnaaw digganteem ak Sidi Diop ginnaaw bu ñu nangoo boîte ba Sidi Diop doon tëggee dal di ko koy jox moom Soriba bi la yoon ci digganteem ak soxnaam si di euh, Rimarta Sow la euh, ginnaaw divorce bi nga xam ne jip na ci seen euh, diggante mu mel ni daal bii mooy énième fois ñoom ñaar ñuy divorcé waaye bi la yoon moom sori baa daal mu mel ni dane c'est fini jeex na jeex na julli tubaab ginnaaw bu ñu demee ba ñoom ñaar coow li nga xam ne moom moo leen boole wàllug fiiraange ci la bokk waaye ak lu mu ci mënti doon daal ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk jël nga sa yoonu bopp ci ne divorcé nañ sëy boobu euh, jeex na Gaston Mbengue kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ñëpp dal dinañu koy ñaaw lu mu mel ni daal ci wàllum waaso la jëm bi la yoon nit koo xam ne la saa bu waxee nit ñi daal seen gémmiñ ndaxte saa su nekk moom day xool intérêt boppam waaye itam intérêt ki nga xam ne moom la topp ci ginnaaw mu di président Macky Sall Gaston Mbengue nag bi la yoon dafa duut baaraam waa famille Ndiassène di Barthélémy Dias ak seen waa kër ne bu ñu leen boole woon ñoom ñëpp taal ci réewum Sénégal famille Ndiassène tekkiwuñu fi dara ndax bariwuñu ci réew mi amaana bu ñu ko méngaleek yeneen famille yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réewum Sénégal kàdduy Barthélemy Dias tax na yenn kilifa yi daal di jóg nag ngir xeexle euh, ki nga xam ne moom moo di Barthélemy jëmale ko ci kile di Gaston Mbengue ndax kàddu yi wax ñu bari dañ koo ñaawlu xalifa Babacar Sall moom daal dinay réagir ngir nag wax ne ay daan yu ñu war a teg ci kaw kile di euh, Gaston Mbengue ndax kàddu yi mu wax mën naa taal am réew Ousmane Sonko mer na ba futt itam tontu na ak ki nga xam ne moom moo di mbeng eh, Mbengue Ousmane Sonko daal dinay exiger ki nga xam ne moom moo di eh, président Macky Sall mu condamné fermement kàddu yi ki nga xam ne moom moo di eh, Gaston Mbengue ci diir bu gàtt lu tollu 24 heures la ñu ko may moom président de la République mu daal di réagir tey itam na ko def publiquement jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di Gaston Mbengue naam bu fekkee ne que Gaston moom la faral sax waaye dañuy xaar mu daal di réagir ndax li nga xam ne moom la Gaston wax mën na taal réew mi di Sénégal Birane Ndour moom lañu ñu daal di tabati ci li nga xam ne moom moo di meilleur manager au African Leader Award ci atum 2021 ca États-Unis concept bi nga xam ne nag ñi la di groupe promo consulting euh, ànd ak seen i partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo di mouvement des entreprises yu Sénégal euh, bi yoon nag moom Birane Ndour di doomu Youssou Ndour di directeur bu euh, TFM moom la ñu daal di tabat yi meilleur entrepreneur de lane ñu àdduwaat ci leneen coowal audience li nga xam ne ñi ngi koy lam-lamee dëgg laam waaye ay nataal yu ko firndeel mu di Jibril Ngom ex mandataire bu coalition Yewwi Askan Wi dawoon ak seen ay dossier ci jamonoy investiture yi Euh, bi la yoon nag dañu ko daal gis mu dem fare ji ci làngu président Macky ci ab audience boo xam ne Natalia mu ngi koy biral mu nekk ca biir palais ba ànd président de la république dend ak benn mbuus bu def xaalis loolu nag tax nañu bari daal commentaire ci lu ni mel waaye itam war gi nga xam ne moom Jibril Ngom war na ko coalition Yewwi Askan Wi dem fekk ji président Macky Sall dafa def yenn jiixi jaaxa ci xel askan wi ba tax na waa coalition Yewwi Askan Wi ak Djibril Ngom Ousmane Sonko itam dal dinay bara baaraamu tuuma président Macky Sall nekk ñoom ñaar ñoo yem te itam bu fekkee ne que dem na ba Djibril Ngom mi def xeetu ñaawteef wile euh, wëlbatiku ñëw mu taf ko ci côté moom président Macky Sall bañul dara ci coow ci réewum Sénégal ñu àddu wax ci leneen lu ñeel askan wi euh, lakk gi nga xam ne moomoon démb ca technopole lu ëpp fukki oto ak juróom yoo xam ne dañu ca tàkk ba jeex ci benn garage mécanicien mu doon xibaar boo xam ne itam bu doy waar la ñi nga xam ne ñoom ñoo moom yi ñoom njaqare ngir ut fu ñu woote ji wàllu uh, mbokk yi xarit yi lii lañ leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndax keppe ñaan ngeen woye suñuy programme di leen ñaanal kenn lu jàmm te leen di jox di daje ëllëg incha allah. ku feebar bu nga faju waaye xam itam fa ngay fajoo ci la bokk kaay ma jox la adresse bu baax bi baraka bio 100 pour cent naturel indil leen ay produits yu mucc ayib yuñ defaree ak suñu ay gàncax set na sell na sans effet secondaire waaw ñu indil leen garab bi biñ dippee kun fa yëkkoon waaw man soigne tout laa ko tuddee moo xam bopp buy métti asthme hypertension hypotension fibrome kis diabète anémie ak yeneen xeeti jàngoro waaye yemuñ foofu góor ñi nga xamante nii dañuy perte réseau maanaam néew kattan ñu indil leen baraka chifa mi nga xamante nii moo mën ci wàllu ngóor góor ba tey ci wàllum góor ñi ñu indil leen le papa waaw yow mi nga xamante ni da ngay jàmbat varicocèle hématurie oligurie ak infection urinaire waaye fàttewun jigéen ñi ndax indil nañ leen la maman miy dox ci kyste fibrome trompe yu bouché insuffisance ovarienne adresse bi benn la ñoo ngi Castor ginnaaw clinique Croix Bleue wooteel gaaw ci 77 454 17 90 wala boog ci 76 535 81 36 wala nga woote ci 78 592 22 09 ak baraka bio di nga sàmm sa wérgu yaram ak njëg yu xéewale